see fës tey nag ci ajjuma ji ñuy xaar manifeste bi nga xam ne dañ ko war a amal foofu ca place de l'obélisque ñu koy amal nag di kuréel bu boole ngir ne daal ñu bàyyi ñu tuddee ñoom seen bopp ay détenu ci wàllu politique nekk ci prison yi ku ci mel ni ne Cheikh Oumar Diagne Ousmane Diagne ak ñeneen tuberculose di feebaru sëkkat fi ci Sénégal nag lu mu néew néew juróom benn région ñoom la daal di dal Ndakaaru moom daanaka moo jël raw gàddu gi ndax boo jëlee Sénégal téeméer yi ñeent fukk ak ñeent yi ñu ngi ci biir Ndakaaru amee feebari sëkkat waaye tamit euh, bërëb fajukaay ba ca ne foofe ca Géejawaay daal téeméer boo jël juróom-ñeent yi am nañu ko euh, te ñu ëpp ci ñi amee boobu la feebar dañu bañ a jël seen i euh, traitement maanaam seen i garab di ay cadre responsable bu ñu dénk programme national bu jëm ci xeex bii le feebar di tuberculose grève la ñu waajal di grève de la fin wala xiifal di ña nekkoon Sotrac SIAS ak AMA Sénégal ñu àppal na nguur gi fukki fan ak juróom ngir mu fayoon seeni koppar toll ci fukki milliards ak ñett ci suñuy koppar. Saint-Louis ba liggéey ba jeexee ak tey jëm ca bël ba fukki bakkan ak juróom-benn ñoo fa jot a xott euh, waral nag ba nappkat yi foofee amee njàqare ñocce foofee ca goxu Mbathie Hydrobase ak Guet Ndar ñu nag euh, dalal niki démb député bii di Abba moom nag daal di ñaa ubbi ab l'enquête parlementaire jëm ci liggéey boobee ca bël booy tamit contrat yi nga xam ne dañu koo jox ay gaal ya ca bétti réew ñaareelu pàcc xibaar yi tàggataram ci ànd ak Youssouf Bodian yéen kaay ak Serigne Saliou Seck ci technique bi Aliou Ba Yacine Pouy moo fexe ci taalibe asalaamaaleykum. dal leen jàmm ci rajo bi ngeen taamu fem dañ koy tàmbaleeg Diourbel élément yu commissariat central ànd ak. sapeur pompier nag ñoom ñoo sulli ni ki démb ab néew xale bu jigéen bu am fukki at ak ñett dañ ko suuloon talaata bi ñu weesu ca sëgaya ca kër Cheikh ñu gën ko xamee barsax li ko nag waral ñu daal di ko sulli mooy xale bu jigéen bañ ko fay suul amul certificat d'agent de mort naka noonu amul benn kayit daal bu waneen war nañ ko waroon nañ ko suul dañ ci ànd ak leeral ak Alimatu Sarr xale bu jigéen bi ñu denc mi ngi dëkk ca village bu nguy mardi bi ñu génn ci taw bu métti bi nga xamante ne wàcc na fii ci njaareem magu papaay xale bu jigéen bi génn àdduna daal di dem rek ca cimetière yu barsax ya nekk ca kër cheikh ngir denc ko bu ñu sukkandikoo ci waa police yaayu xale bu jigéen bi génn àdduna te rek ay atam toll ci fukki at ak ñett moo rek wax mbir mi procureur gannaaw ba mu amee jiixi jaaxa ci denc gi nga xamante ne magu jëkkëram amal na ko ci jeudi bi waa commissariat centrale bu police ànd ak waa sapeur pompier dem rek euh, sulli ji néewub xale bu jigéen bi ci njàppandalu ay doomi aadama gannaaw ba nga xamante ni waaye ji nga xamante ni moo demoon denc ko dafa lànk ne du ko sulli ba ñu ko dégloo ca police moom nag daal dina xamle ne jot naa woo rakkam ji nga xamante ni moo jur xale bu jigéen bi nga xam ne bi muy génn àdduna ma ngi ko fekkoon ca bërëbu liggéeyu kaayam gannaaw nga xamante ni moo nekk mag mu dem denc ji ko te rek amul certificat de genre de mort naka noonu certificat d'inhumation lanket bi ubbi nañ ko papaay xale bu jigéen bi yaay ji ak ka dawaloon oto ba déglu nañu leen waa sapeur pompier ñoom yóbbu nañ néewub xale bu jigéen bi foofee ci hôpital bu Diourbel ngir ñu amal autopsie bi Diourbel Alimatou Sarr rajo Futur Média pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor ñu wéyal xibaar yi manifeste bi ñu xaatee ci ajuma ji ca place su obélisque nag ñu koy amal di kuréel bu booloo euh, ngir ñu bay ñu tuddee ñoom détenu politique maanaam ñañu noot ci prison yi ku ci mel ni Cheikh Oumar Diagne Ousmane Diagne ak ñeneen ñu nag jàpp ne daal yoon euh, dafay rek tëddewul benn yoon njaaxaanaay euh, te lii yëpp du lenn dul président Macky Sall dafa bëgg noot ñenn ñi ngi daal ñu fexe ba ñu mën a am force seeni ñetteelu mandat ñu teg loxo ni ki démb ca Payar ca département bu Koungheul ki daal jàpp ne moom moo daal di faat doomam foofu ca wendu boobu moom nag gannaaw ba mu defee jëye joojee dafa dawoon mu dal di dóor bali fetel doomam mu dóor ko ci biir bi euh, yëf yi nag mu ngi am ñaar fukki fa ak ñaar ci weeru ut bi ñu weesu ca commune bu Thiel ca département bu Linguère di euh, xibaar bi ñu baaxee suñu doo foofu ca Linguère di Baye Assane Diaw am na kenn daal koo xam ne dañ ko teg loxo muy sax lu njëkk ci lu jëm ci carte euh, professionnelle ci tasum xibaar ci im réew muy ab animateur lañ ne daal moom la ñu teg ko loxo police moom moo ko teg loxo gannaaw daal ba mu wone carte de presse professionnelle am waaye daal dafa baaxul ndax nekkul ci fichier bu commission nationale bu carte de presse moom nag euh, mi ñu teg loxo mu nga ca garde à vue te mën naa jënd ko euh, procureur ndax kayit yu mu yor ay kayit yu baaxul la ñu wax euh, ba tey ci xibaar yi ña nekkoon Sotrac SIAS ama Sénégal ne daal euh, mun nañoo amal beneen grève de la faim maanaam di xiifal ñu àppal nguur gi fukki fan ak juróom ñoom nag euh, doon liggéeyee foofe daal li ñu laaj nguur gi mooy fukki milliards ak ñett leexal yi ak euh, seen waxtaan démb dama na fekkee ko Abdourahmane Diallo. ginnaaw bu ñu daxee seen grève bi nga xam ni moom la ñu doon amal te njiitu réew mi ne leen ñu bàyyi xiifal googu ñu doon liggéeyee Sotrac SIAS ama Sénégal dàqu ñu delloo buum ci booy booy ga Ousseynou Diop moo yor seeni kàddu. dans 15 jours. au plus tard bu fekkente ne amuñu benn waxtaan benn pour parler ñun fa nu jógee woon daan fa delluwaat luñ ci am jël parce que lii daf noo jaral suñ lépp parce que kenn du nekk sa biir njaboot di fa toroxee ba dee fa te nit alal te ba di fay ay nit di joxe ay xaalis ñuy dem ay coupe du monde ak ñii di taaxuraan ñuy maye ay quatre-vingts millions di jël ñi nga xam ne li ñuy laaj dañ ko moom muy seen ak ak seen nga sànni leen fële ci ginnaaw loolu jaaduwul ci réew. ex travailleur yooyu li ñu bëgg jamono ji mooy daj ak njiitu réew mi ngir jéema saafara jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu nekk di jànkonteel ndax jàpp nañ ne xaar bi yàgg na. moo ñu joxoon délai de rigueur laay wax parce que dafa ne bu ma dellusee loolu délai la bu ma dellu see régler problème bi ba mu dellu see ak léegi dem na fi demaat fi demaat fi woowuñu recevoiruñu yónneetul beneen hémisphère ñun nag comme ay sénégalais lañu li ñuy laaj yalwaanuñ ko saraxuwuñ ko dañu bëgg nag mu fay ñu woo ñu waxtaan ak ñun ñu trouver solution une bonne fois pour toutes. ci fàttali ginnaaw bi ñu tasee seeni société yooyu di Sotrac SIAS ak Ama Sénégal ñi fa doon liggéeyee di xamle ni lu toll ak fukk ak ñetti milliards la leen nguuru Sénégal ameel ñeneen ñu ñuy dente di intersyndical liggéeykatu secteur primaire kuréel secteur primaire nag ne euh, mbay. Euh, napp wala sax càmm gi ñoom nag dañoo dakkal seeni grève ba talaata euh, ñaar fukki fa ak juróom ci weer wi ñu ne ñoom nag ñu ngi xaar tontu euh, bu officiel bu jóge ci gouvernement bi lu jëm nag ci seen plateforme revendicative intersyndical bi nag boole liggéeykat yooyu secteur primaire ma ngi woon ca assemblée générale ca Diamniadio Omar Dramé bokk na ci cellule de communication bi ci micro bi ak Abdou Diouf Diagne te comme gouvernement bi jël na engagement si dagul si dogalu président de la république moo tax ministre yi wooñu pour ñu toog trouver solution léegi si loolu noonu donc euh, ñun gis nañ ne donc volonté gouvernement bi pour que ñu jéem a régler suñu problème moo tax wax dëgg fa yàlla ñun tamit ñu décider marche bu ñu namoon a def tey doxu ñaxtu bi ñun dañ koo dakkal dakkal parce que donc comme gis nañ ne ne waxtaan yi ubbeeku na te waxtaan moom donc moom moom la ñëpp di sàkku moo tax ñu dakkal marche boobu noonu ñu defaat leneen donc loo xam ne wax dëgg fa yàlla gouvernement bi woote woon na pour ñu dakkal suñu grève bi ñu nekk depuis euh, weer a ngi nii léegi nag grève boobu aussi tey si assemblée général bi décidé nañ dakkal ko ba talaata ba talaata dakkal ko maanaam maanaam maanaam lu ñuy wax daal donc négandu négandiku waaw nëggandiku donc ba talaata parce que talaata amoon na beneen am na beneen euh, ndaje bu am solo bi nga xam ne gouvernement bi si ndaje boobu noonu si lay donc joxe euh, réponse officielle am si par rapport ak ñun suñu ñaxtu bi ñuy def nii te ñun ñu ngi rappeler gouvernement bi wax dëgg fa yàlla donc ñun lépp lu ñu santoon ñun def nañ ko te ñu ngi jël à témoin aussi sénégalais yi parce que comme ñun liggéey rek lañ bëgg te wax dëgg fa yàlla waxtaan am na waxtaan boobu nag lenn rek rek rek rek moom mooy tax donc pour euh, ñun ñu am satisfaction mooy suñu indemité interne yu ñu daggoon ñu delloo ñu ko ñu bañ ci laal dara ba pare toftal ci indemnité de logement. ñu waxtaan li nga xam ne mooy société bi de Dakar Dem Dikk euh, foofee ca caaro yi ca dépôt ba fa ne. Euh, kañu teg nag ca société ba di Ousmane Silla maanaam moom mooy njiit gu bees bu société boobee ma nga woon ca bërëb ya mun nag fekk foofu ay biis yu bëri yoo xam daanaka dawatuñu ndax dañoo paan ñafane nag di ouvrier yi ñu dénk defar bi yooyu lay woto ne daal amuñu jumtukaay ngir mën a taxaw ci liggéey bi Ousmane Silla ne daal na mu fekkee liggéeykat yi jàdduwul ndongo bari ci biir hangar mécanicien yu dépôt bus Dakar dem dikk bu caaro yi fii nag ouvrier yi ku ci nekk suubu nag ca waar wa ci suuf ñu nemmeeku ay fiilu courant yuy jàll fu ne nag ci biir ndox mi nga xamante ni moo fiy ball. mais courant ma ndox mi yaa gis ne da nga liggéey yàgg courant mas la mais loo ci mën. ouvrier yi war a fexe nag ba bus yu bari yi fi gaare te daal dee paan daal dee dawaat waaye ñu ni seen ku liggéey nag ci anam yu jafe nag lañu koy defee. kala ñuy liggéeyee amul ouvrier ba gis mi ngi keesam pour liggéey liggéey boppam bépp amul amul matériel daal ak lépp soxla nañu gant amuñu verre à souder non fi amul dara. ki jiite dépôt bi bureau am uutewul ak marché ndax jaxasoo ndox muy ball fu ne ne boole kook tilim ki topp ci moom sol ay dàlli bot ngir wattandiku naka ndox mi ni ci anam gu nu mel ñaari at a ngi ci li ñuy liggéey. amul comité depuis koy dund. so ko tàmm. ci alxamis ji directeur bu yées bu Dakar dem dikk demoon naka nemmeeku liggéeykat yi Ousmane Silla ci bureau régulateur yi daje nag ak personnel boo xamante ni xol bu jeex lañ doon waxee ak moom.

SAES nag euh, rafetewul nañu euh, jëlee personnel u enseignant bi euh, ñu nag joxari baramu tuuma recteur bi ñu daal jàpp ne dañu daal di manipuler texte yi foofee jëm ci appel à candidature yi syndicaliste nag li ñu bëgg mooy kilifay fexe ba leeral yëf yi ba tamit ñu moytu lënte-lënte yi daal di amat foofee kayoor revendication ca université boobe ca SAES campus Kaolack mu ngay wuyoo El Hadj Omar Ndaw ñu déglu ko ñun sunu coono bi ñu gën a tey mooy mbirum doxalin ndax boo fekkee ne liñ naan recrutement maanaam ngi jël jàngalekat. ci li ñuy wax département lañ koy jëlee. foofu lay déparé. département bi kan moo nekk ci kaw conseil département bi après la chef de département. bu ñu xalaatee ba tënk jàllale ci li ñuy wax UFR conseil d'UFR bi moo nekk ci kaw après directeur d'UFR. bu ñu tënkee jàllale ci conseil d'UFR mu tënk ñu jàllale ci recteur ndax moom mooy valide recrutement yi. mu wëññeeku nag jaaraat ci ginnaaw wëlbati sart yi nga xam ne tënkoon nañ ko ci département bi loolu mooy na problème ndax li ñuy doxalee université loi la loi nag ku ko jalgati war nañ laa yóbbu fa mbaxana doonee benn ñu lijjanti la loolu nag mooy sunu problème actuellement dañoo jalgati yoon fii nag loolu daf fi bëgg a doon mënin mënin boobu moo war a dakk ndax munuñ lu waa wax nangam nga ñëw jalgati loi ba pare toog fi nga toog naan li may def naan nangam nangam loolu la ñuy dénoncer te nag dañ ci commencé sonn saisir nañ bureau national SAES wax nañ ko ne saisir autorité compétente yi ne loolu moom day dakk ma pare nañ pour lum ñu jaral ñu def ko ci lijjantiwuñ kuy recteur ak ku dul recteur ci maanaam problème ku war a diriger ku mën a diriger mais liñ lay laaj mooy di nga respecté tak ndax teg si moom muy man muy sama morom ñun ñëpp ci bokk yam ñëw tali Saint-Louis député bii di Abba Mbaye nag tase nag euh, ñii di nappkat yi mu nag euh, rafetu daal li nga xam ne mooy liggéey ba foofe waaye nag gis nañu daal ñii di nappkat yi foofe ca Santhiaba gox Mbacke hydrobase waaye tamit Guet Ndar ñu ngi ci ay jafe-jafe ndax daal gis nañ ne gannaaw liggéey bi ba mu jeexee ca bël ba fukki bakkan ak juróom benn xot nañu fa Abba Mbaye nag ne daal dafa bëgg ubbi ab l'enquête parlementaire ngir fi daal di leer Ousseynou Diop moo ñu koy leeral. Abba Mbaye ni mu ko waxee woon noonu la ko defee ginnaaw ba ko doomu ndar yi fale ñii di nappkat yi la njëkk dem seet yi. ginnaaw boobu leen jaajëfalee Abba Mbaye daan nay àddu ci jafe-jafe yi nga xamante ni nappkat yi moom la ñuy jànkuwanteel. waay waay. ñi nga xamante ne gaz bi dafay yàq seen liggéey gestu leen bu ngeen ne Sénégal dafay soppeeku dafay am émergence mais ñëpp xam ne suñu croissance ñun secteur primaire moo ko te ku ne napp gi wax plus de 244 milliards yu war a impacté sur PIB chaque année muy wàññeeku wax lu ëpp juróom benn téeméeri euh, euh, junni emploi yoonte ne moom lay moom lay indi ci réew mi te ba tey muy yàqu ñu xam problème emploi mi sax ci wàllu bël bi nga xamante ni li mu faat ci doomu aadama ëpp na ñeenti téeméer moom Abba Mbaye nag ma ngay naqaarloo nañ ko defaree mu ni dina taxaw ngir ñu amal enquête parlementaire ci mbir mi. lii ci bël bi boobu ba tey ñuy dig bu teyee ñu ne dragué nañ ko bu subaa ñu ne def nañ ci ay balise bu subaa ñu wax ñu beneen bu lu wax mais ba kañ. man dinaa demander une mission d' wala une commission d' wala une mission d' information si investissement yi ñu def ci bël bi. leen loo xamante ni naqari na ko jëm na ci wàllu licence de pêche yi mu jàpp ni nañ ko joxee du yoon. te loolu itam war dañ ko gëstu. bu njëkk ba ku daan bu buñ tollee jamono ji kenn daawul gëti boo demee fii balaa ngay ak jota def li ngay def mais ñu mën ko xalaat ñu xam kenn mooy accordé licence yi lan koy accordé ak sunu jokkalante sunu liggéey ak sunu coopération ak Mauritanie. Aba mbay ñii di nappkat yi daal koy dalal ci diiru ñetti waxtu muy waxtaan ak ñoom ñu jàpp ni nag seen i doléance ci dina ko yóbbu ci assemblée nationale ngir ñu indi ci saafara ci na mu gën a gaaw. Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. Ousseynou Diop feebaru sëkkat maa ngi doon wax sànq ci bopp xibaar yi mu ngay jaaba jong ci Sénégal ndax euh, Dakar Thiès Diourbel Ziguinchor ak euh, Saint-Louis naka noone ma nga fa waaye Dakar moo ci gën a sonn ñu sax jàpp ne daal ñi ko amee foofee ca bërëb fajukaay ca Géejawaay daanaka dañu bañ jël li nga xam ne moom mooy seeni garab ñu waxtaanee euh, salon de l'habitat construction fii ci ndakaaru jëwriñ ju njëkk ji nag am na yaakaar daal lépp luy tegtal jëm ci fexe daal ba yëf daal di yemb ci wàllu problème logement dañ ko respecté Amadou Ba euh, joxe na ni ki démb euh, tàmbaleeb euh, salon foofe ca CICAD thème bi nag ren mooy ñu war a waxtaanee ban xeetu yoon la ñu war a jël ba logement doon lu antu ci mim réew ñu déglu kii di Amadou Ba ak Abdou Diouf Diagne. mais xam ngeen ni aussi logement ci wàllu koom-koom fii ci Sénégal dafa am impact dina tax réew mi gën a yokk ndax luy dugg ci kër pour mu taxaw lu bari la ciment fer béton peinture carreau. et cetera loolu yëpp ay nit a ciy liggéey te suñu njaboot ñu bari xarañ ci loolu waaye xam nañ ni tey fi problème mu emploi yi fu liggéey fi mu toll président de la République ak fu mu tollu réew mi bunt boobu buñ ko explorer incha allah nit ñu bari mën nañ ci am xëy ci ndigalu président de la République bu soobee yàlla conclusion yi nañ ci bàyyi xel. te incha allah dinañ ci jàppale Abdoulaye Seydou Sow ci lu ñu mën mooy fexe ba programme ak projet yi nga xam ne am nañ ko te lépp di pour defar réew mi ñu fexe ba ñu def lépp wala boog la ci ëpp ñu def ko fi may wax ak yéen ni am na commission yoo xam ne ñu ngi liggéey ci nu ñuy wàññee fu luwaas yi wàññi la fu luwaas yi moom la solution structurelle li gën a gudd moom mooy fexe ba nga kër yi bari bu offre bi baree rek prix yi wàññeeku li ci des nag moom ci biir ñu fexe ba li ñuy tabaxee kër yomb ci biir Sénégal mooy ay ciment ay fer ay bant loolu yëpp ñu fexe mu yomb ci biir Sénégal fexe it et ça c'est important mooy la politique d'industrialisation bu dul lépp li ci ëpp ñu mën ko defaree ci biir réew mi. Youssouf Bodian maa ngi leen nuyu. di la fay Rachid ñu waxtaani euh, sport tàmbale ak beach kan bi nag euh, tey ci àjjuma ja lay tàmbale foofu ca Mozambique. Mozambique euh, ca Villacoulos foofu la match bu njëkk bi di amee bu 13 h jotee ci Ndakaaru Mozambique moo organisé mooy dalal Malawi ci match bu njëkk bi Sénégal ëllëg bu kon 12h jotee ci samdi bi tey da jàkk Uganda gaynde Sénégal ñoo yor raaya bi ñoom nag li ñu bëgg mooy juróom-ñaareelu yoon bi ñu daal di ko gagné. waaye démb xibaar yi neexul ndax am na ñaar ci euh, kon équipe bi lu amee euh, Covid 19 kenn euh, ci joueurs yi ak ku bokk ci staff bi loolu taxul kon Sénégal ba tey mbébétam mu ngi des maanaam fexe rek ba ñibbisi ak trophée bi lu déglu sélectionneur bi di Mamadou Diallo ak Pape Malick sant yàlla biñ ñëwee ñëw nañ si jàmm ak salaam comme niñ ko waxee moral bi ça se passe très bien. yàlla def na ñëw nañ euh, voyage bi gudd na mais géré nañ ko def nañ fi ñaari séance d'entraînement biñ ñëwee léegi gis nañ ne fatiguement bi mu ngi day comme niñ ko waxee moral bi ñu ngi sant yàlla on est prêt parce que aussi ce serait pas facile parce que quand tu champion d'Afrique équipe yu bari dañ lay bëgg a te ñun ñëpp ñun gagner Sénégal rek mooy seen commencé nañu teg ay problème yu ndaw tuuti quand je dis ay problème mooy euh, déclaré nañu euh, Mamour Diagne ça veut dire papa kon di Mamour Diagne dañ ko jox ne dafa Covid donc euh, je ne sais pas si c'est réel ou c'est pas réel les tests ils ont montré dañu Covid tu sais que Afrique des fois c'est compliqué parce qu'on essaie toujours de te éliminer jox la ay situation yoo xam ne mun dara j'espère que dina arrêté tey jii aussi tamit même bu perte Mamour Diagne c'est un jour lu am na ñeneen ñoo xam ne war nañ ko mën a remplacer aussi parce que looloo tax ñu indi fi effectif bi yëpp j'espère que dina fi yem j'espère que demee du ñu indilaat encore nañu yeneen ñaari jour dañu Covid je pense que ça dina arrêté fii incha allah mais de toute façon ak lu munti am rek ñun on est donc situation bi nu munti demee incha allah nañ ko dékku parce que forcé nañ jour yi moralement préparé nañ leen moralement et mentalement aussi xam ne tout est possible ba ñu waxtaanee football fukk ak ñaareelu journée bi ca première ligue niki dem lañ ko daal di jeexal. Nampalys Mendy ñaari fukki simili ak juróom-benn le football ak Leicester mi daan Leeds ñaari bal ci dara tax na Leicester kon jógee ci place bu mujj bi ñëw ci avant-dernière place bi Fulham moom dafa daan Aston Villa ñetti ball ci dara ginnaaw défaite bi nag ñii di waa Aston Villa dañoo dàq seen entraîneur di Steven Gerrard. Pochettino mi nekkoon Tottenham kon ñu bëri njort ni moo koy wuutu ci banc bu Aston Villa. des Angleterre ak Manchester United jël dogal bañ a convoqué Cristiano Ronaldo ci match bi dox seen diggante ak Chelsea euh, samedi lay doon euh, li ko waral mooy Cristiano Ronaldo bi ñuy joué ak Tottenham euh, ci banc bi la nekkoon xaarul match bi jeex mu daal di jóg dem dugg ci vestiaire yi loolu nag Manchester United def communiqué démb ñaawlu ko ba tax na kon ñu teg ko ay daan Cristiano tontu na. Euh, wax ni kon moom professionnel la depuis bu mu amee vingt ans ni muy doxalee boobu ba léegi moom lay wéy di doxalee euh, tey sax dina continuer liggéey kon ngir jàppale équipe am bi di Manchester United. Mhm. ca Espagne FC Barcelone moom démb dafa daan Villarreal ñetti bal ci dara Lewandowski dugalaat na ñaari bii la dugal Ansu Fati dugal benn bu international sénégalais bi di Nicolas Jackson. titulaire la woon ci côté Villarreal waaye ci cinquante septième minute bi lañ ko euh, remplacé. ñu waxtaanee bëre door Siteu tontu na Papa Sow. ginnaaw bu ngeen dégloo Papa Sow démb wax ni kon dina daan Siteu moom phénomène bu Lansar moom euh, nee na confiance bu rëy la àndal ci euh, combat bi ndax jàpp na ni kon moo gën a féete ndaw Papa Sow kon te combat bi ni mu mënta demee moom moo koy diriger ñu déglu Siteu démb ci open open press bi mu doon amal. Papa Sow bu doon nelaw bu bu doon nelaw ma ñoppati ko mu yeewu bu ma jàppee nag ma bëreloo ko ba mu bàyyi bu ma jàppee ma bëreloo ko ba mu bàyyi bu xàccee ku ma xeex ak moom ba mu doyal dama ko ne combat bi noo bëgg mu mer rek si yow la dañuy dugg oto maa ngi moom bu ñu jot wàcc ma duma ko daan ko unité 1 ba 26 bu ñu jot wàcc ma duma ko daan ko Papa Sow bi nekk mag jëmm def carrière am bay waaj a jeexal mu jaral ko mu tegloolu foofu ne moom fu ma fekk daf may daan. waaw yow kon man mii xale na laa war a def. nee naa la combat bi dama ko bëgg. combat bi dama ko fonk. combat bi daf ma jaral. papa bu mu def dara. na taxaw rek moom. du ma ko may dara. fu mu ñëw ma fàttal ko maa ko wax. fu mu ñëw ma fàttal ko foofu. nga dégg nga fàttal ma foofu. kon le 6 novembre la fët fët. 6 novembre daal diggante Papa Sow ak Siteu arène nationale Sèye. jaajëf ak RFM kumpa jeex na. xibaaru ñeel caat yi dañ ci ànd ak Fama Dione. nag jàmm musique la ñuy tàmbalee chronique bi Alioune mbay Nder génn na single bu bees tuddee ko positive ñu déglu ci ab pàcc. bul di ñu waxtaanee wàllum taalif ak semaine de la langue italienne bi nga xamante ni tàmbali na 19 octobre war a wéy ba 9 novembre gi di nag ab colaboration diggante Afrique culture urbaine bu Pikine ak institut culturel italien bu Ndakaaru Jee Diop xam naa ni man rek ngeen bañ man rek ngeen bañ a gis bon ba tee. Islam di xeetu kebatu boo xam ne dañ koy amal mën caa jaaree sax di ci jàngale ak yeete loolee nag moo waral ba Italie daal di lëkkaloo ak réewum Sénégal fas yéene tànn ayu bés ngir amal ay yëngu-yëngu ngir gën a xamale seenu làkk Oumar benn Khattab Keita bokk ci organisateurs yi dellu siwaat na ci programme bi ak nees ko fas yéene doxalee. donc lëkkale ñaari dëkk yi muy Sénégal Euh, essayer un peu donc euh, pousse suñu langue ñun ba pare ak langue italienne bi. institut culturel italien bu Dakar ànd ak Afrique culture urbaine fas yéene jëmmal bile xew-xew directrice bu institut bi di Serena Cinquegrana dellu siwaat na ci tànneefu Sénégal. c'est de construire des partenariats avec les réalités les plus intéressantes amal nañ fi ay partenariats ak euh, doomu réewu Sénégal ci pàcc yu fi ëpp solo daanaka loolu nag tax ñu ñëw di liggéey ak bile association de Afrique euh, culture urbaine. bi la xew-xew nag ministère italien bi ñu dénk wàllu jëflante bi ci réew moo ci lëkkaloo ak Afrique culture urbaine slam italien Sénégal ñu ngi ko fas yéenee amal fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre ba juróom-ñeenti fan ci weeru novembre atum 2022 ci Ndakaaru Pikine ak Thiès. festival bu Ngexoox jeex na démb organisateur yi nag nee ñu bilan bi baax na ci juróom-ñaareelu édition bi Souleymane Jules Diallo mooy coordinateur bi. bilan bi dañ naan euh, y a eu beaucoup d'aspects positifs maanaam yu am yokkute la parce que am nañu yu ëpp fukk dëkk yoo xam ne dañoo ñëw participer ci événement bi. ah pour la première fois aussi gis nañu ren euh, ministère de la culture euh, contribuer symboliquement à hauteur de deux millions pour accompagner que six éditions yu mujj yëpp mosuñu see contribuer gis. aussi délégation yu bëri jógee ay Tamba ay Casamance ay Kédougou fépp ci Sénégal ñu ñëw euh, nekkal ngeen fii ci ñaar fukki fan yoo xam ne euh, festival bi ci lañ ko doon amal. Mhm. donc mun nañu wax ne festival bi mu ngi màgg koy gën a comprendre nit ñi ñu ciy gën a impliqué. Souleymane Jules daa ngeen ko déglu nu mu gën a yaatoo ëllëg ci samedi gi mooy doon ganu xalam jërë ngeen jëf mbokk yi doon déglu dig daje altine gii di ñëw. NCA Malaysia Yumu Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi